jaaraama jërëjëf doxalin bi ngeen di doxalee loolu la ñuy xaar ndax fa pendkat koo xamante ne digg na la añ bu nekkee ne jox na la ndékki ba pare sa xel war naa war a mën a dal ndax jéego yi ñu tegagum Touba xam nañ ne fañ jëm ak ñoom mbënn mi ñuy jooy peut-être d'ici quelques nu mu tëddee année man de jàpp naa ne ci logique bii ñu nekk ni buñ ci jëmee dinañ ci indi ay nu mu nañ leen wet nañ a jox jox nañ ko hmm. Touba yow tey ñun ñi euh, euh, de courant ak leneen ak leneen ak at bi jooy nañ ko lu bëri dégg nga ñu wax ko ndox mi nga xam ne dañ ko doon jooy ñun ñi gàddu ay gurtu di dem rooti est image yooyu ren gis nga ko image yooyu gisuloo ko te bu doon kon ne def nañ benn faux pas bu ñëpp ciy wax lu tax presse bi yëpp waxuñu ci c'est parce que lu baax moo fa am te ñoom ci lu bon la xaar pour ñaw ci pour wax ci te pourtant kenn déggul ñu ne avancement bi nga xamante ne am nañ ko ci wàllum courant ak bi déggoo ñu wax ko bi màggalu Touba bi rombee ñoom ñëpp a raas jàll dem seen yoon na ci màggal bi mënul ñàkk ci courant bi coupé mais ma ne la mënul ñàkk ci courant bi coupé mais baisse de tension yi ak courant gu métti gi nga xam ne dañ ko doon am am na amélioration année passée ak année bi te bu ko amu bu ko bu ko amutoon pen na nga xëy ci à la une c'est à la a koy bind mais binduñu ko tey nous on n'est pas là pour défendre Pastef on est là pour la vérité et li ñu gis moom la ñuy wax kon nag man mënumaa jël ay waxu Bougane Gueye Dany tegg ay acte yoo xamante ne teg nañ ko fi pour jël ay waxu kàcckat koo xam ne dafa am problème mu chic di ko di nu mu tuddee di def comparaison y a même pas comparaison et y pas lieu de faire une comparaison d'accord loolu sa gis-gis la mais Mamy Samb ni ulay waxee ni régime bi passé li ñu ci koppar ci wàllu inondation yi buñ ko réussir mën du fi amati dama ci bokk si ñu gëm loolu mm-hmm. ndaxte nag dañ fi def 12 ans te mënd bi nekk lu sonal lool li nga xamante ni moo di askanu Sénégal mm-hmm. te temps bi ñu fi def ñu wees ñi defaguñ ko fi mm-hmm. donc xëy na ñoom la ñu waroon réussir ci inondation boobu euh, buñ ko réussir woon te amaana tey kenn du fi wax waxu taw wax ak lu ni mel mais dañ ne état wax continuité ci boobu boobulee continuité tamit ñi ñi ngi doog a toog euh, ñi nga xool fii ak nawet ji di ñëw xëj na yenn jalons dañuy posé mais ndax lu ni mel quand même tey war na justifier ñuy dégg ab ministre bi ñu denk wàllub euh, hydraulique di wax ni nawet bi du suñu nawet. Mm-hmm. alors Cheikh Tidiane Dièye euh, propos boobu jur na coow lu bari parce que xam nga Sénégal moom on est fort dans l'interprétation ne boo waxee yow ni nga waxee nit ñi ni mu bëgg déggee rek lay déggee. Euh, certainement en disant que nawet bii du sunu nawet xëy na dafa bëgg wax ci ay kàddoom rek ne yàlla bu ñëwee ak mbiram kenn mënu ci dara beneen bi ci topp mooy ne effectivement tu l'as dit dans ton propos mooy ne c'est un gouvernement nouveau buy door a toog euh, gouvernement boo xamante ne dafa nekk à la recherche de solution aujourd'hui problème mu inondation pend ñi ñu ko war a imputer ci ay responsabilité dafa bëri parce que je dis souvent Sénégal mooy dëkk boo xamante ne. Mhm. après plus de 60 ans d' existence li ñu ci gis mooy ne ce sont les mêmes problèmes moom la ñuy jànkoonteel chaque at. et chaque mhm. at bu période ba jiwee ce sont les mêmes débats qui se posent mais on n'avance pas en réalité ce qui se passe c' est que dañuy annoncer ay chiffres ak i montants à coup de milliards. Mhm. Euh, annoncer ñu également ay plans yoo xamante ne moom moo fiy ñëw euh, plan Orsec plan décennal te plan yooyu yëpp. benn amul ci audit interne boo xamante ne ñu mën a wax ni wax dëgg yàlla xaalis bi fii la dugg séance la que man dama jàpp ne war nañu auditer xaalis bi nga xamante ne wax nañu ne dugal nañu ko lépp nag ci wàllu mbënn mi euh, te ba léegi que ça soit Touba que ça soit yeneen i région ba ci Ndakaaru chaque année on est confronté aux mêmes difficultés yi man nag dama xamul ndax euh, cuune la wala tële la wala ñàkkub xam-xam mais ab bu mu ci mënti doon hmm. baax na ñuy sóoraale ne askan wi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyal dañu am droit de leur rendre compte hmm. ci li nga xamante ne moom mooy sunu xaalisu bopp ci li ñu koy dugal ak ci fan la ñu koy dugal hmm. aujourd'hui sa gouvernement là ñu ngi nekk di def ay efforts efforts yi ça va dans le sens nga xool tey jii kat état bi am na foo ko fekk état wu liggéey bi fi nga ko fekk nii nga mën koo natt fii par exemple ay diir ne man kat war naa mën a apporter une solution mais on veut des solution durable maanaam ñëpp xam nañ ne saison hivernale dafa am Sénégal saison hivernal boobu bu ñëwee on ne peut pas se permettre ñuy tabax ay tali yoo xamante ne duñu xalaat canalisation duñu xalaat fu ndox mi war a mën a jaar. Hmm. Touba par exemple problème bi mooy ndox wi du gaaw a suuf si du gaaw a naan ndox mi ndax suuf si ci bëri dafa bane. donc loolu il faut nga trouver une solution boo xamante ne ndox bi bu ñëwee du tag day am yoon wa muy jaar fii nag Sénégal. mooy réew moo xamante ne ni maanaam parole politique dafa jiitu torop ci sunu ay jëf. Hmm. te malheureusement amul dara loo xamante ne war nañ ko mën a craindre parce que pour la toute bonne et simple raison qu'il n'y a jamais eu réellement de contrôle ci li nga xamante ne moom mooy xaalis yi ñuy investir ak investissement boobu ndax gis nañ ci sunu bopp te bu ñu ci gisee sunu bopp ba pare lan lañ ci jot a def ak lan moo ci manqué lu nuy mottali. xam nga bu fekkente ne da nga ñëw par exemple fekk loo xamante ne ni wax dëgg mm-hmm. yàlla dafa dem ba mujjee nekk une tradition et une tradition qui est devenue naturelle et normale tradition buy jural ay doomi aadama di ci ñàkk seenu bakken boobu tradition baaxul loo xamante ni yow at mu jot même débat yi ngay posé soit tu parles de l'immigration clandestine wala nga wax ci wàllum inondation maanaam saa yu ñu ci tolloo ci waxtu yi mm-hmm. c'est les mêmes débats qui sont menés partout te ñu ne réew mi am na ay experts. souvent sax damay wax ni yenn émission yi ñu ci doon def mën nañu koy denc rek. oui mais on a des experts on le ah, dit mais ces experts la est-ce qu'on les utilise à bon escient mais lu mel ni Touba xalif général bi wax dëgg yàlla xolama rëy rek ne xew ci réew mi mu yëkkati enveloppe am joxe. def na ko ci Covid bi defaat na ko bi yoon ci inondation yi Touba ca kanam ay initiative yu mel noonu nga xam ne souvent sax dama naan est-ce que ëpp ñu njëriñ sax état yi fi nekkoon ndax pas-pas bi ñu am ak taxawaay bi nu am bu ñu amoon moyen yi ñu waroon a am ñu xam ci fan lañ ko war a mën a def man gëm naa ni Touba dootu dund jafe-jafe yu ni mel. Mhm. jaaduwul ci waxtu wi ñu ne ñuy wax ci dëkk boo xamante ne ñu ne veille on tend vers l'émergence mhm. émergence boo xam ne on habite dans des zones inondables dañuy tabax kër foo xamante ne waruñu fa tabax ndax place su ndox la te ñu xam ko bu baax te mënuñu ci dara te autorisation dëkk boobu dañu leen ko jox ku leen ko jox du état kon am na ci responsabilité bu ndox wa ñëwee on construit de route yoo xamante ne xalaatuñu ne taw bi bu ñëwee kat ndox mi war naa mën a jaar fii ba tegu ci yoonu géej gi non on est dans des projets d'usine de de do d'eau dañu ko war a tàmbali ba ci gouvernement Wade bu ca Diouf amee wàll ba ca Senghor ñu xool ñun en réalité on a quel problème qu'est-ce qui fait que mënuñu régler problème mu inondation fii mm. qu'est-ce qui fait que c'est dans ce même pays qu'on parle de 700 milliards qu'on parle de nangami milliards yu ñuy dugal ci ay secteurs déclencher ay plans yoo xamante ne at mu jot plan yooyu ci lay door a am njëriñ maanaam nekkul ay plan yoo xamante ne au quotidien war na mën a permettre ñuy améliorer chaque jour que je la vie des Sénégalais on est toujours tous exposés à ce même problème bu fekkente ne kër yi taa nañu ñuy jëlee njaboot yi dugal leen ci biir école yi bu école ubbee xale yi du ñu am fu ñu jàngi jee mm-hmm. bu boobaa ñu déclenché waat beneen plan pour dindi ndox ci école yi mën a nettoyer wala defaraat ay tablement banc c'est-à-dire Sénégal c'est un pays boo xam ne on n'évolue pas te nii ñu ngi jëm ci ubbitub école bi te am na école yu nga xamante ni euh, ba tey ndox baa nga fa mais avancé wuñu stagné je suis désolée les problème des années derrière moo nekk sunu ay problèmes ba tey on parlera des abris provisoires on parlera également du manque d'eau d'électricité ci jamono bii nu toll nii alors que nous on a le solaire mmh. c'est-à-dire on parle aujourd'hui des problèmes yoo xam ne at mu jot c'est les mêmes problématiques moom la ñuy jànkoonteel bi courant bi yeewoo yendoo coupé tak may laaj benn ba ju nu ngeen nar a def pour def émission mais parce que Sénégal rek la ñu war a wan toll ci air boobu aujourd'hui suñu suñu solaire yi keroog laa xam ne am na am na te te et encore ñun dañoo am chance imaginel ñi nga xamante ne ils sont habitués à vivre dans le noir imaginel askan wi nga xamante ne dañuy def ay kilomètre pour am ndox moo xamante ne moom la ñu toggalee seenu njaboot wala ndox bu ñu defee seen ay tâches ménagères cest dire que ñun mooy dëkk boo xamante ne bu ñu bëggee dégg dëkk mm-hmm. avancé guñu te parce que on est tout le temps dans les débats yoo xamante ne ci wax rek lay tënku tënkuwul ci ay solutions durables Mmh. aujourd'hui il faut unir les efforts parce que la vérité mooy problème inondation bi dama ne il faut ñu wutal ko saafara une bonne fois pour toutes il faut ñu saytu xaalis bi nga xamante ne jot nañ ko cee dugal il faut ñu xool ceux qui sont responsables de ce qui est en train de se passer parce que à la limite ça frise un crime que jot ay nit di ci ñàkk seen ba nit ñi di ñàkk seenub kër nit ñi di ñàkk seen ay matériel ci lu ñu leen dul remboursé yaakaar ne war na noo mën a jël ay moto pomp rek wéeru ko ci benn ruq xaar ba nawet ñëw ñu génnee moto pompe war nañoo mën a dépasser niveau boobu balaa nawet yi di ñëwaat moto pompe yooyu yàqu waaw mais est-ce que mën ñu mën nañoo continuer di dëkkee noonu je suis désolé dëkk boo xamante ne yow da am période nawet te yow tawuloo 12 mois sur yi nga xamante ne day taw tout le temps comment la preuve Sénégal ñun bu dee taw sax ñu ci bari ci ñun duñu liggéey parce que amuñu culture boobu ñun bu nuy taw duñu xuus liggéey bu nuy taw dañuy toog suñu kër prétexte la pour bañ a liggéey alors que dans les autres pays normaux bu dee taw nit ñi dañuy day sol seeni mbubu dem liggéey ci je veux dire on est tellement habitué à cela que finalement dañu yaakaar ne c'est une norme te ce n'est pas une normalité du yoon dëppoowul ak yoon askan wi faaw ñu noppal leen tuuti maintenant ce régime régime buy door a juddu wax dëgg yàlla mënoo ko nag am euh, jël yenn responsabilité yi nga nga ampi ko on parle même de six mois mais à la limite gouvernement boo xamante ne avril la ñu ko taxawal boobu ba léegi fekk fi ay situation yoo xam ne depuis 60 ans mu ngi fi sa waay ce n'est pas en un de doigts que les choses vont changer mais on attend d'eux à ce que ci at yii di ñëw ñu trouver au moins ay solutions yu soulager la population concernant cette question des inondations nga xam ne c'est une question récurrente chaque année dafay dellu si on a les mêmes problèmes et Sénégal on n'avance pas. Mhm. beneen problème bi nga xamante ni tamit dafa tax euh, fii ci Sénégal avancé wu ñu mami mu ñeel ba tey li nga xamante ni moo di jafe-jafe ci Sénégal yi di jànkoonteel ñeel li nga xamante ni moo di wàllu mbëkk mi xam nga ni nag wàllu immigration moom dafa nekk phénomène bi nga xamante ni moom. Euh, doy na waar ndaw yi li ñuy euh, faatu ci géej gi euh, bëri na lool. Mhm. rawatina li xew fan yee passé ca Mbour ba njiital réew bi teewoon fa am kàddu sax yu mu ci yëkkati ah, ni ko gisati gaal gi dem na nga yoole ñi nga xamante ne président nag ay termes yàgg lay utiliser ay yoole. xale la <laughs> c'est normal. donc président xale la yooyu yëpp sunu sunu langage la yooyu yëpp wax mhm. na ko fa mais. ñu dégg tamit ki nga xamante ni moom moo di may mën a jëyee ba tey mu waxee xol ne xale yi. mënu leen ñu fal ba pare bëgg ñoo wan ginnaaw ñàkkum espoir boobu ñu gis léegi ci ndaw ñi ba tax ñu ñuy persister di jël gaal gi pour yow lan moo ko waral ba tey. mais parce que ndaw ñi en réalité dañuy jànkonteel euh, ay situation yoo xamante ne souvent koo ci toog wéetal wala nga déglu ay témoignages yi nga xamante ne ñiy jël gaal gi dañu koy def da ngay comprendre ne fii espoir nekkatu fi. Mhm. te xam nga nit ku dem ba euh, ñàkk espoir pour nga delloo waatal ko maanaam. loolu nga xamante ne c'est ce qui fait battre son cœur ba suba bu xëy mu am envie jug dem ñafe ji dafay jafe Sénégal pend màgget mu feebar la foo laal day métti te situation yi nga xamante ne xale yi dañuy toog di jànkonteel ak moom tout le temps wax dëgg yàlla ku leen yërëmul war a mën a comprendre souvent état d'esprit bi ñuy nekkee maintenant gaal gi du yoon du yoon boo xamante ne foofu la ñu war a mën a jaar. pour mën a dem espérer am un avenir meilleur parce que Europe tugal mën ngaa am chance dem say mbir dox comme mën ngaa am chance dem dundu fa lu gën a tar li ngay dund ci sa réew te dama bokk ci ñi gëm ni am ndaw ak jeunesse moo yor avenir u réewum ëllëg donc aujourd'hui su fekkente ne on est prêt pour un changement dañoo ñun dañoo jël engagement wu ne dañoo bëgg soppi li nga xamante ne moom moo nekk di xew ci réew mi dafa laaj benn facteur bu important facteur boobu c'est la patience gis nga loo xamante ne yow yàgg nga cee dund mu metti mu tar man gëw ma ne yàlla sunu borom dina teg doomu aadama natt woo xamante ne da xëy juddu ci màgg ci dee ci amul loo dund lu metti na nga sóoraale lu neex dana ñëw ëllëg boo ko fa xaaree donc ce nouveau régime bi nga xamante ne moom moo ñëw sa régime là nit ñi dañoo amub yaakaar ci ñoom yaakaar wi nag dafa diis ndax da ngay fekk ay nit ñoo xamante ne danoo dem ba seen réew gëmatuñu ne war nañ fee mën a tekki mënatuñu xëy jàkkaarlook yaay ak bàyyi te mënaluñu mëna mënaluñu ko dara jàng nañu ba yey seen i këyit waaye amuñu fu ñu liggéey maanaam y a pas d'opportunité de travail boo xamante ne am na ci réew mi il n'y a pas une main tendue réellement vers la jeunesse souvent les politiques utilise plus la jeunesse qu'autre chose mooy ne booy nuy dara danga naan xaaral ma dem sakku ji kàddu ndaw ñi mais souvent dañu on a été déçu à plusieurs reprises ci ay régime yoo xamante ne ndaw ñi jox nañ leen lépp waaye delloo ñu ndaw ñi lu bari mooy ne on n'a pas pu structurer aller dans la création d'emploi fexe ba ndaw ñi mën a am liggéey bay gis seen bopp ba pare am épanouissement te épanouissement dafa bokk ci cadre de vie buy développer nit mooy ne léegi ambiance familiale bi baaxatul bopp ko ñi neexatul bërëbu liggéeykaay yi neexatul boo dee liggéey sax di xool bu weddee li ngay fayeku danga naan est-ce que jar na sax may sonn donc yow booy toog yor sa téléphone bi ak réseaux sociaux yi yaa ngi gis sa benn xarit boo xam ne ba mu tukkee yàggul kat waaye saa waay sol na ay adidas yoo xamante ne ni yow gis nga ci sa bopp wala yaakaar nga ne ku ko am na lu dul jeex xëy na wërsëg bi kooku am ba dem ba tugal yow boo demee doo am wërsëg mu ni mel mën naa am yàlla mu nga lay dencal lu gën ci sa réew waaye boo toowul xaar ko doo ko fi fekk mm. c'est en cela li nu mën a def rek c'est continuer à sensibiliser continuer wax ndaw ñi ne leen bu leen xaddi tey jii li ngeen xamante ne nii moom mooy Sénégal même bu fekkee dañu koo dénk ab njiitum réew njiitum réew moom moomul réew mi réew mi ñun ñii fi dëkk ñun ñoo moomal suñu bopp réew. maanaam ñun ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp mais dans ndax yoole bi képp moom mooy solution bi. non c'est pas que yoole bi képp mën na doon solution parce que problème bi mooy c'est même pas xale yi jël gaal problème bi c'est les passeurs en fait. problème bi mooy ñiy organiser voyage bi ak problème bi mooy ñi leen di yóbbu xanaa xamoo ñooñu ci délit lañu ne ñooñu ci délit lañu ne parce que c'est puni par la loi en réalité amaana kanara yoole buñ ko nee kañ yóbbaale la sax mu teg fa yoole ba te dem dugg ca gaal bu gisee yoon buy dem parce que bu gisee yoon buy dem moom sóoraale wul danger ba koy fekk ci yoon wax li muy sooraale mooy chance bi mu mën a am bu yeggee te laaj leen ñi nekk tugal tugal neexatul léegi penda bitim réew léegi dafa metti en fait opportunité yi nga daan am yu ci bari dootoo ko amati. am na ñuy dem ba yegg. am na ñuy dem ba yegg souvent seen i mbokk seen i famille dootuñu amati seen ay nouvelles. da ngay waxtaan ak nit ni ko su ma ñëwee yaa may héberger mun na la waaw. boo yegsee ba ba sur place di ko woo téléphone dootoo ko jot. ci train la ñuy fanaan dootoo ko jot. pour la toute bonne et simple raison que. kooku la muy dundee après mhm. mais man tout le temps dama leen naan bu leen leen mere parce que xamu ñoom it situation bañ fa nekkee nit a ngi toog Europe ak suturaam rek. mais waxal dëgg rek. non moo tax gis nga bul gëmloo nit ne boo ñëwee dama lay héberger. mais malheureusement c'est-à-dire que ñun ñëpp on pense que tukki mooy mooy idéal bi. Mhm. te souvent tukki du idéal bi. ñi fa dëkk pendant quelques années seen bëgg-bëgg yëpp mooy dellu si ci seen réew mais nag il faut qu'on construise il faut ñu tabax. Sénégal boo xamante ne nit ñi yaakaar wi daf fiy des te loolu mu ngi tàmbali ci jikko yu baax yi mu ngi tàmbali également ci yaatu ak ubbil suñu dënn mu ngi tàmbali tàmbali également ci am patience patience dafa baax ci lépp ndax am réew mu yàqu munoo xëy rek defar ko mu sotti waaye bu ñu amee ngëm-ngëm ne ñun ñëpp si on y mais la main à la pâte et que ñu teg de côté toutes les divergences yi nga xamante ne amalul ñu njëriñ ndaw ñi bu ëllëgee war nañoo mën a gis seen bopp bu baax ci réew mi qu'on retourne à la terre qu'on retourne à nos principes ci sunu ay valeurs yi nga xamante ne moom la xam te moom la yare mhm. état bi itam di liggéey ci li nga xamante ne mooy permettre ou ouvrir les portes d'opportunité yi permettre xale yi mën a liggéey mhm. il faut que ñu suqali sunu économie mhm. il faut qu'on tende vers l'industrialisation il y a tellement de solutions à trouver dans ce pays ba ci wàllu formation yi sax dañ ko war a varier mënuñoo nekk ci am réew moo xamante Mm-hmm. yaa ngi dégg marketing communication la. Mm-hmm. journalisme la. Mm-hmm. ak leneen ak leneen c'est les seuls métiers yoo xamante ne moom moo fi am parce que système bi ñu am système bu baaxul la mënu dul ubbil ay opportunités yeneen yoo xamante ne mën nañu permettre ñu am de nouveaux métiers. aujourd'hui àdduna dafay dox am ay métiers yu yees yuy bees faaw ñu ci tàggat ndaw ñi buñ leen ci tàggatee faaw ñu amal leen ubbil leen ay opportunité yoo xamante ni dina leen permettre ñu mën a liggéey mais bu ñëpp dajandoowee sur le marché ñëpp ami diplôme te ñun ñëpp ñoo bokkandoo lu ñuy jàng te société yëpp ñoo jëlandoo ñun ñëpp nu muy demee mm-hmm. mooy ndaw bi nekk marchand ambulant mooy ndaw bi jaayi cere mooy mm-hmm. da ngay dem yow ba da ngay jaay sa ngor mm-hmm. te ñun Sénégal baatum ngor dafa diis ci ñun. mooy ne dañoo jomba def yenn yi. Mhm. souvent yeneen nationalité yi ñooy ñëw suñu dëkk ñooy def yenn liggéey yi mais ñun jombale nañu ko suñu bopp kon nag dama leen di wax rek ñu am patience. Mhm. Mhm. immigration clandestine jël bateau di dem wallahi du solution lii solution mooy ñu xool naka la ñuy defaree sunu réew. ñu mën koo liggéey mën koo tàggat te xam ne Sénégal gi bu baaxee ëllëg ci sunuy loxo bopp lay jaar. Mhm. alors même question pour toi Oulaye ci mhm. ci jalon yi nga xamante ni war nañ ko war mën a teg pour éradiquer ce phénomène euh, bi nga xamante ni moom moo di immigration irrégulière mais également ci jamono ji nga xamante ni ni ko Mamy waxee ndaw ñi am nañ patience ba noppi it amatuñ patience ba noppi tamit euh, ñàkk nañu espoir. Mhm. donte ni euh, tey ji porté nañu accompagné nañu ay nit ba ñu accéder tey ji au pouvoir ba tax sa ñi kii di Maimouna Dieng di ko déplorer. nga benn comme ni ngay wax rek des am na émission yoo xam ne dañ ko war a denc bu dara xewee rek ñu tegaat